قلوب علام الغيوب الحمد للحق المبين من كونه لي يبين حل الكتاب المستبين مع جميع نعمين الحمد للحق المبين من كونه لي يبين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 ويس نون من لساني يسوع خولي يسوع خولي بارك برم توبا بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قراننا في الدنيا خرينا وفي القبر معنسا وفي القيام الصفيعا وإلى الشرات نورا وإلى الجنان الرفيقة وبيننا وبين النار سترا وإجابة وإلى خيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جليجي mbokki taalib yi njabootul islaam waa kër Cheikh Ahmadou Bamba ummatu rasulillahi salallahu alayhi wa sallam delsi nan fin baaxoo delsi muy Baol Média ci seen émission basiran wa nasiran ki leen koy taxaw di seen mbokk sëñ Mamor Gom Yaqiin bu Tuubaa Daaru Salaam di leen jéggalu bu baax di leen bu baax a baax ci am xames ji paase nga xam ne déggu leenoon seen émission bi di ay yitte rek yitte jamono yoo xam ne daboon nañu noo ngi jégalu bu baax di nuyu sunu directeur Cheikh Mod Diop Thiat di ko ñaanal yàgg ak wér ak mboolem njabootam ak mboolem ñu yëngu ci kër gi di teg suñ directeur programme teg ci soxna Warxa secrétaire ak mboolem ulama yi boroom xam-xam yeeg ustaas yépp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di siyaare Baye Diagne fay mi jóg léegi di ko ñaanal jàmm ak njabootam jàmm ji sedd guy di ko ñaanal suñu technicien yi noo ngi janoog tey xale bu sawar waaye nag joxuñu ñu turam kon ñu ngi koy siyaar bu baax a baax di siyaar Sëñ Fàllu mi randu léegi ak soxna jàmm ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar cheikh ibrahima khalil moom it ñu ngi koy béeral siyaar ak nuyo ak fu mën a nekk te di ñaanal jàmm ju sax dàkk noo ngi ci nuyo bi saayibul fadila cheikh mouhamadinil muntaqa Hafizahullah wa ra'ahu wa baqa umruhu di ñaan sun borom subhanahu wa taala mu yàgg lool ti wir ba lépp lu mu bëgg liggéeyal maamam ja tedd jooja sunu borom may ko tal ak fekk ba mu liggéey ko nim ko bëggee te taalibi yépp ànd ko ak moom lépp lu ñu yëngu ñu am ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa xaadalaahu lahul muxtaar kon dañuy jéggalu mbokki auditeurs yëpp di jéggalu mbokki taalibi yëpp noo ngi woon ci dunduk yonente bi sallallahu alayhi wa seen émission bi di basiran wa nasiran dil siwaat na fas yéenee def ak yéen niñ ko baaxoo def ak yéen ci alquranul karim a ngay wàcc ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam noonu muy wàcce ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam nag gaa yi taxaw temm ci ne lii yonent bi di woote du fi am ba tax na lépp lu ñu am ci ay moyen dégaasé nañ ko lépp lu ñu am ci ay juntukaay jéem nañu fang woote bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam ba sayidina jibril daal di ñëw indi aaya tedd bii ne gaa yi dañoo bëgg a fay leerug yàlla waaye ci seeni gémmiñ lañ koy fay te sunu boroom subhaanahu wa taala lu mu dana am mooy leeram gi daal ak njubam gi ak diineem ji di diiney lislaam dara mënu koo te mag sababu nu soolu aaya yooyu moo ñëw fii auzu billahi min asheytaani rajim يريد أن يفعل نور الله بأفواههم ويدعو الله إلى إليات نوره ولو كرهنا الكافرين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليعذر على الدين كله ولو كرهنا الكافرين صدق الله العظيم دق بايكو نفا يالله sunu borom subhaanahu wa taala ci sababu nusul boobu nee na gaa yi de ñu ngi def seeni pexe ngir njubug sunu boroom gi ñu ngi def seeni pexe ngir leerak sunu borom gi dara du ci mën a sotti ngir yónnent bii mu yónni daal fim ko yónnee moom la ñu xeeb ndax dañoo bëggoon ne ñoom notaabali màkk gi bu fekkante ne yàllaa ngi yónni ndaw ñooñu lay yónni waaye ñooñu dañoo desee xam ndax ñoom dañoo jiital poñetam àdduna dañoo jiital ay patron dañoo jiital ay notable sunu borom nag mbiram du noonu ndax sunu borom kenn du ko wax ni nii ngay def wala lii ngay def wala nii nga koy defee déedéet sunu borom subhanahu wa taala nag ànd ak yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam di yónni Seydina Jibril alayhi salaam muy ñëw ci yónnent bi sallallahu alayhi wa moo tax yi ñoom sababu nu nusuulu ay yii di ñëw dafa leen a jaaxal lool lool lool ndax mbir mu xew rek Muhammad wax te bu indi ay bu ko jàngatee walla kenn ci àndaalem di soppeem yi jàng ko dañuy gis ne ñoom li ñu doon laaxan nag li ñu doon nëbb lépp sunu borom subhanahu wa indi na solution boo xam ne day wax pexe yi ñu doon nas ak ni ñu ko doon nasee kon lii doon loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa diirub li mu nekk ci màkk ba ni mu génn màkk dem madinatul war sunu boroom di wàcce ci moom aayu sell yi di wàcce saar yu sell yi di wàcce aayu tedd yi kon tey ñoo ngi tàbbi nag ci xare bi jëkk ci lislaam muy xare badar di xare bu metti lool di xare bi jëkk waaye jiitu loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jullit yi sonn lool ñu leen di dóor di leen génne di nungu seeni alal di leen tox-toxal di leen def lu gën a metti bi loolu amee ñuy muñ rekk moo tax ñiy wax ni diine ji diine jaasi moo ko taxawal déedéet dañoo juum ñaata yoon lañu leen rey ñaata yoon lañu rey seeni nit ñaata yoon di leen naq ci am ndox di leen tëral ci naaj wu tàng di fab ay doj di teg ci seen kaw di leen diri ci ay taxas di leen sotti ay mbàqi gëléem jamono bu ñuy sujjóot ñu sotti ay mbàqi xar ci seen kaw yu nëpp di ñag seeni buntu kër di gas ay kàmb ci seeni kër ñu ci daanu lii lépp jëfalante nañ ko ak jullit yi ba tax na mënatuñoo xaj màkkatal mukarram ñu génn màkkatal mukarram nag dem madinatul munawar mu yasrib toppoon nañ dund yonent yi ba ni mu yegg yasriba ba ni mu def coalition boobu nga xam ne jàmm ji mu indi ci biir madina xam ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam turam rek jàmm lay tekki turam tawféex lay tekki turam mbégte lay tekki turam yërmane lay tekki ndax sunu boroom moo daggee ci jëmmam ju sell ja def ko ne ko rahmatan lil alamin ci mboolem bindeef yi turan mboole seen kon yónnent bi sallallahu alayhi wa noonu mu mel doon koo xam ne dafa mat ci biir mat ci bitti mat ci jëmm mat ci jikko di fuglu boroomam fu mën a toll ànd ak lii lépp mu ngi yitti boroomam di jàngat digganteem ak boroomam di jàng ay yi nga xam ne mi ngi jóge fa boroomam di jaar ci seydinaa Jibril alayhi di ñëw ci moom di indi solution ba nii xare badar bi tàmbali yonent bi sallallahu alayhi wa jot na bis Seydina Jibril daal di indi aaya yu sell yu màgg yu tedd jox ko ne ko sunu borom nee na njëgg mii nga xam ne jóge na màkkatal mukaram jëm siri jënd nañ ba woññeeku nañ kon jullit yi nañu waaj bu baax ànd ak ak dogu ànd ak takku te fës yéene jàmmaarloo ak ñoom sunu boroom indi na solution ngir yàgg gi ngeen yàgg muñ sunu borom subhaanahu wa taala nag léegi nee na ngeen fayu kon dóor fayu ci xare badar bi la tàmbalee yonent bi jàng aay sell yooyu daldi ni leen nag bëgg naa ngeen waajal xare bi bu baax a baax kenn ku nekk lu mu am na ko indi ngir ñu waajal xare bi suñ borom nag dig na ma ne ma xare bi benn ñu gañe xare bi wala ñu daje njëg mi moom la ca nekk kon suñ borom moom digg na ko ne ko ñaar benn rek ñaar yi moom lenn moo ci mun a am nga daje xare bi te boo dajee ñoom gañe leen wala nga jot njëgg mi duma leen nungu la ca nekk muy seen alal yi ñu doon dox doxal ñaar yi moom fokk lenn ci am yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam wax waa Madina muy lansaar yi ak muhaajir yi ñu daldi waajal xare boobu daldi yónnent bi sol mbubb koŋam ràngoo jaaseem woo mboolem saabatu rasuul muy ñent ñi ko gën jege woo lansaar yi woo muhaajiruuna yi ne leen nan leen dem ndax njëgg mi jege si na waaye bi yonent bi waxee lii am na soxna su jóg bind benn leetar ci lu gaaw daldi wuti màkkatal mukarram ngir ku mu daje rek jox la ko ngir nga yóbbu ko waa màkka ngir yëgal ne leen Muhammad mi ngi dal ci seen kaw loola yonent bi sunu boroom daldi ko ko yenkeewal mu yónni Seydina Ali ne ko dem leen ngeen dabal ma jigéen ji di balxata ñenn ñi lool la wax ne balxata bind na benn leetar ma ngi ko roof ci létt ya musóoru waaj ba jekk jëm màkkatal mu karam na ngeen ma ko dabal nungul ma leetar bi ñoom Seydina Ali biñ ko dabee ne ko soxna si fan gi jëm mu ne man dey màkka laa jëm dama fa am yitte ñu ne ko déedéet leetar bi nga yor lañ bëgg nga jox ñu ko mu ni leen man day yoruma benn leetar ñu ne ko jox ñu leetar bi nga yor mu ne yàlla xam na ko yoruma benn leetar ñu ne ko jox ñu leetar bi boo ñu joxul leetar bi ci digg màndiŋ mii lañ lay futti ndax yonent bi laa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha du wax mukk mukk ci bànneexu ba kanam te lu mu wax dëgg la ndax yonent bi laa nabiyul kazab du yonent buy fen lenn ci ñaar rek moo mën a am nga jox ñu ko ci sa teey ak bakkan joxoñu ko ñu daane la futti la wisit la ba génne lettre bi yóbbul ko yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu xamee ni caaxaan jeex na nag alxata balaata daal di foq musóor gi daldi di firi jubb yi mu defoon ci bopp bi génne leetar ba jox Seydina Aliyin ñu wàññeeku ñëw toggaale soxna si indi ko ci kanam yonente bi comme leetar ba demut kay daanaka moom soxlaatul mu dem bi mu ñëwee yonent bi di ko laaj mu ne bu leen ma saax-saaxe def leen ma ndànk ndax man mi duma bi yéefar ab jullit laa gëm naa yonent bi sallallahu alayhi wa gëm boroomam gëm diine yi lislaam waaye lenn rek moo ma tax a jëf-jëf jii ma jëf mooy pexe mii li ma ci jublu woon mooy sama njaboot dañoo nekk ca màkkatal mu karama awma kenn ku leen aar ma bëgg na bind leetar bi teel leen a annoncé na yonent bi mi ngi ñëw di dal ci seen kaw ngir ñu mu dib neexal ndax awma alal ju ma leen di jox su ko defee ñu aaral ma sama njaboot ngir loolu ma wax lii rekk laa ci jublu woon waaye du caagee ne dama weddi yonent bi wala dama weddi diine ji yonent bi bàyyi ko jéggal ko noonu ñu daal di génne xare bi nag madinatul munawwar bi ñu ñëwee nag bay jub badar wax nañu ni badar ab teen la woon ñii ne ay tool la ñi ne ab tund la diggante ñaari tund ak ay xur yoo xam ne teen bu mag a nga fa woon waaye alakula li gën a lëng mooy badar ab teen la woon bi ñu ñëwee ba foofu yonent bi sallallahu alayhi wa tekki daldi di tàmbalee samp xayma bi am ci saxaaba yi ku jóg ab éthiopien la muy salmaanul farisi nga xam ne daana fekkee xare yu bari waaye xare yooyu xare ceddo la woon ci jamono jaahiliya mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko yow ki yàlla yónni ci dëgg ndax lii sunu boroom moo la ko digal walla yow sa xalaatu bopp la walla sa sëraatisi de guerre la rekk boo def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lii day sama xalaat rekk la mu ne kon fii du ab dal nanu dem ba ëmb teen ba dox seen diggante ak teen bi sakk mboolem teen yi fi nekk duy sunuy naanukaay nan duy sunuy bërigoog sunuy mbuus nan duy sunuy siwo ak sunuy bidong te sakk teen yi ba mu des benn ñu dox seen diggante moom du nu naan su ko defee nu gaaw a gañe xeex bi yonent bi rafet lu xalaat bi lool daal ne ko hakaza loolu day ànd naa ci te xalaat bu jub la ñu daldi waraat daldi jiggi montagne mi yonent bi daldi yeble ci waa Makka gis ñaari gawar laaj leen ne leen yéen fu ngeen bàyyi ko mu ne ko ñun dey Makka leen jóge yéen it yéen ay waa fan ñu ne ko ñun waaye Madina lañu mu ne waaw ndax dégg ngeen ne xare bi jóge Makka ñu ngi ñëw fan lañ war a toll mu ne ah, sori wuñ nag mu laaj moom yonent bi ne leen waaw ñoom ñaata giléem wala ñaata gàtt la ñuy rey ñu ne ko dinañu rey bis bu nekk téeméeri giléem wala juróom-ñeent fukki giléem dana ko rey par bis wala ñaari xar wala ñetti xar yonent bi ne kon seenub lim mi ngi toll ci diggante juróo junni ak juróom-ñeenti téeméer wallaay asim noonu ko yonent bi waxee junni lañu muy baat bi mu jëkk a wax diggante junni lañ ak juróom-ñeenti téeméer ñoom itam ñu wàññeeku dem ba ñu demee ñoom it yeneen gawar ñëw fekk ñi yónnent bi yónne woon seen giléem yi fi ñu yësoon dañu faa neefare waa Màkka it Abu Sufyaan moo yor njëg gi mi waaye aboo Jaal moom it yónni ñaari gawar ni leen dem leen ràndul ma seetal ma gëstu ma resani ni yonent bi sallallahu alayhi wa ak ñi mu àndal fan lañu ñu toll ñu daldi gëstu ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi biñ ñëwee ba gis fi giléem yi yës dañoo xar neefare giléem fekk ci tàndara ñu ne ñii waa Madina lañ daal di wàññeeku loolu bi mu amee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëgg mi daal di yegg si waaye ki nga xam ne muy Abu Sufyaan doonoon ku ñaw di boromam xel nga xam ne moo jiite njëgg mi bi mu yeccee ba xam ne Muhammad mi ngi leen di kar dafa daal di def yi boo xam ne bu gaaw la mooy wëri beneen montagne jaar ci weneen yoon ndax ku miinoon yoon yi la mu jaare ci weneen yoon gaaw dàq giléem yi daldi raw waaye yimul ci loolu waaye dafa def beneen yi ci ginnaaw bi mu rawee nag dafa xotti yéreem yi jàpp ci ñenn ñi taqal leen deret daldi gaawantu yuuxu ne waa màkk daw leen muhammad sallallahu alayhi wa sallam kar na seen njëgg ma ba nungu na seen alal ya rey na gaay ya ca nekkoon yuuxu lu mën a mën a mën bi lii amee gaa yi daal jóg takk xare bu xajul fenn yor seeni fas yor seeni gawar daldi yor seeni xeej ak seeni jaasi sol seen mbubbi koŋ waaye bi ñu gisee njëg mi dugg si Abu Jahl moom dane ah Abu Sufyaan ne ko loo gis mu ne ko li ma gis comme njëg mi raw na nanu wàññeeku dellu te bañ a dem di dajeek ñoom di xeex ak ñoom comme ñun suñ alal raw na te yàlla def na jotu ko nan waññeeku mu ne ko loolu du xalaat danu nu dem ci kanam jullit yi rey fa sunuy gëléem naan fa sàngara tuur fa sàngara ñu bàkk ñu ñu puukari ci seen kanam yëkkati sini jaas yi jigéen ñi sarxol li tëgg tabala yi ñu xam ne ñun du ñuy ragal waaye bu nu wëññikoo nii delluwaat dañ naan ñii ay ragal lañu ñii dëppoo ak moom ñii bañ dëppoo ak ñoom ñu ne ñun day li ëpp ne ñunkat kat comme sunu alal rekk lañ doon wallu ji te yàlla def na alal ji raw na dañuy wàññeeku dellu màgg ñépp ñi ci ëpp wàññeeku ba mu des junni ñooñu ne moom mukk duñu wàññeeku ndax booba ind bintu ba mu ngi ci seen biir di soññe rekk ci ñu dajeek yonent bi ngir mere gum ko mere ngir xaare gu ñu ko xaare ngir génn gi mu génn màkka yóbbaale li ëpp ci nit ñi te dara jotu leen ñu fayoon téeméeri giléem ngir ñu dab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te kenn dabu ko ba mu dem madinatul war kon génn na ci suufus màkkatal mukaram léegi mi ngi ci kaaraa kaaraange madinatul munawar bi lii amee mu di aw naqar ci ñoom ànd ak àndaale mba ababikrin lii nag doon loo xam ne fayit la ci ñoom mooy dañoo perte ndax jëmmi yonent bi lañ soxla woon mënatuñ ko léegi nag yonent bi dem na fa fële am na doole jullit yu bari ànd nañu ak moom ñu dégg ne yonent bi sallallahu alayhi takk na ab xare jëm si ci ñoom ñu waññeeku dellu loolu gàcce lay doon ba tax na ñu ne mukk duñu wàññeeku bi loolu amee nag ñu daldi dem ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam yegg si Badar ñu duy seeni naanukaay daldi sakk teen yépp ba mu des benn teen ñu dox diggante waa Màkka ak teen boobu lii mi ngi nekkoon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci li ëpp ci boroom xam-xam yi li ñu wax kon soxna si mën nga nu yëkkati sëñ boole moomu ñu dellusi si ci waxtaan wi incha wa qalbu lam yanami من تجنب الصباح عن جسمي مع الصيام كضاق طفيل سعاب دائمون المخنمين من توسل الطيور بي لو استكى بعير وانفجر الماء النميم يد شد كرمين سمع تسبيح الطعام في كف أفضل الأنام كتاب سبي بكلام مجزة المطرمين كلام دب قتتا فيها بنص ثبتا حنين جذع غتتا بمعجزات المكرمين كان يسور منسلا رضوان كي يبجلا من الطيور المرسلة على سبيل التعزم نهى إلى البيت الحرام لكي يسير سندا مستر الرجل من العنام لجهل بالمعظمين وتعالى بجاهي وتعالى كيدهما في فالكل من شوي البطر مات بأصواي عجر جعلهم رب البشر كلقم لنحمين waa kay jërëjëf soxna Ndeye Coumba Diop moo nekk ci moo nekk ci machine bi moom lañu ñu janoo tey yéen a ngi ci seen émission Basiran wa Nasiran ki nekk ci waxukaay sëñ Mame Mor Ngom Yakhine yéen a ngi déglu Bawal Média 88 point fii ci tableau Thia bi mi ngi noonu dégg nga sëriñ bi fi mu koy indi ci jasbul xuloob illaa allaamul xuyoob di wax ne wallahu jàlla faala bi jai man faala suñ borom lu ko neex def suñ borom lu ko neex def yonent bi sallallahu alayhi bi ñu janook nag yéefar yi ñu di junni ñii di ñetti téeméer ak fukk ak ñett di xare bu mettee metti xam nga ne junni bu ñu janook ñetti téeméer ak fukk ak ñett kenn nit ku nekk boo xoolee li muy xeexal war naa mat ñetti nit boo ko doon xayma walla mu ëpp ko ci kenn kenn yoruñu ay warukaay yu doy yoruñu ay jaasi yu doy yoruñu alal ju ñu waajale xare bi waaye liñ man lépp def nañ ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nañu waajal xare bi kenn ku nekk loo am nga génne ko waaye bi ñuy dem Badar ñu ëpp dañu doon dox ñii di war bu kii waree lu tolloog xaaju kilomètre wàcc keneen ki doo ko war nii lañ doon awante ba yonent bi sallallahu alayhi wa sax am na ñu mu doon awanteel ba dañ ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg a wow ñu ne ko déedéet yow mën ngaa continuer bul wàcc mukk nun mën nanoo dox mu ne déedéet yiw wi ci nekk gënu leen ma ko bëgg te gënu leen maa bëgg lu baax te gënu leen maa xam li tax ñu jóg kon bu fekkante ne kenn dina doylu kon yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam dana doylu ci aw yiw ko xamne sun borom neena na ko li yakhfira lak ma khadam min san bi wa ma ta akhar kon yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam doylu ay yiw kon julit yi lolou war na leena motiver ñu góorgóorlu ci bëgg lu leen di aar bëgg aw yiw bëgg lu baax di yokku seeni sarax di yokku seen rafetal di moytu yu ñaaw yi ak jikko yi ñaaw yi ngir lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dox jëm ci xare badar te yor waru kaayam di ko séq ak ñaar moom moom ñoom ñuy ñett nit ñoo xam ne ñoo séq gi nga xam ne mooy ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàkkaarloo na nag xare bi nag ñu ngi ko sampal xaaris ba ababikrin sadiq ngi nii sayidina omar dina usman teewul sayidina aliyin Hamza ak jàmbar yépp Bilaal Omar ñoom ñépp ñëw nañ Sayba bi ñu ñëwee ba jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ñaari rakka woo jullit yi ba leen waar leen ne leen na ngeen xam ne yéen ngi jàkkaarloo ak nooni sunu boroom yi te su ngeen jàkkaarloog nooni sunu boroom yi li ngeen ci amee war nañ leen ko wax ba mu leer ci seen bopp jullit warta yox yoxi ab jullit warta daw ab jullit warna amu fit aw jullit warna am xam xam ab jullit warna xam lan la ko sun borom jaral ne len sunu borom denu digelon ne ben ñu tassé njëgg ma nungu la ca nek muy alal yi ñu jëlalon tox toxalenu mak sun alal yépp ñu nangu ko ñu bàyyi fa lépp ñëw cundung ak sunuy jëmm sunu borom digaloo na ne bu nu tasee njëgg mi dana nangu loola lan ñàkkoon lépp sunu borom remplacé na ko loolu amut dana nu tasee xare bi nangu la ca nekk ñoo leen di gañe te danañ leen dàq màng la fa nekk ci ay màngit te bu boobaa loolu dana nu jural xare bu ñu jógati dana nu am ay jaasi dana nu am ay mbubbi koŋ dana noom ay fitt te sunu tur dana yëkkati ko xool yonent bi sallallahu alayhi bi mu indi ak xutba bu rëy bii mu ba jullit yi loolu nag tax jullit yi yëpp daal di wu nag andi seen jom indi seenu fit andi seenu njàmbaar ndax yonent bi mi ngi ci seen kanam te lii lépp moo ko waral waaye yonent baa ngi ci seen diggante di samp may mana bi nga xam ne ñii ñu ngi ci ndijoor ñu ngi ci càmmoñ ñetti téeméer ak fukk ak ñett janoog junniy nit muy xare bu doy bi yonent bi pare ne leen yéen jullit yi ayuhal muslimuun képp ku faatu ci yéen da ngay dem aljana direct képp ku faatu ci ñii ngeen jàkkaar lool day dem safara direct kon na ngeen fexe ba moytu ne diw li ma def walla ngir moytu kenn lu mu bari bari doole léegi dingeen di tàmpaloo kenn ku nekk nañu def kenn par kenn ñu janoo bi ñu waxee loolu Abu Jahl daldi déet waaw kon ay bismillah bi yonent bi duggaatee ma ngay julli di ñaan moom yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan sunu borom subhanahu wa naan ko kuréel bii ci badar bis bu ñu alkoo kenn duutu la jaamu yow yàlla ci kaw suuf kuréel bu néew bii ne ko sunu borom ñi taxawal diine lislaam ñi seen bakkan jaral ñu ngi nii di kuréel bu néew junni wër leen yor seeni ngànnaay ñun amuñu ngànnaay waaye am nan ngànnaay ndax ngànnaayoo la yow sunu borom xasbuna allahu ni'mal wakil daal ni sunu borom maa ngi lay ñaan ya xayu ya xayum ci sa tur wow di xayul xayum kuréel bii yàlla bu ñu alku yàlla na nga indil sa ndimbal li nga ma jagleeloon yow yàlla maa ngi lay ñaan loo mu mësa di tey ci ndam yàlla na nga ma defal ci bis bii di ñaan di ñaan di ñaan tàllal ay loxoom rek ba kaala gi mu tegoon ci ay mbaggam dafa dal di wadd te yonent bi yëgu ko Ababakirin daal di for kaala gi tegaat ko ci mbagg yonent bi ne ko doy na suñ borom dégg na sa ñaan te wuyu na la suñ borom dina la dimbale Ababakirin xamul lu yonent bi xamul waaye yonent bi dafa xam boromam xam gi mu xam boroomam nag tax na ku la gën a xam yàlla gën la ko ragal ndax sunu boroom ni muy soppee mbir ak sunu boroom ni muy jëflante ak ay jaamam tax mu gëm loolu ba tax mu tàll rek ay loxoom di ñaan di ñaan di ñaan te ñaan googu li muy tekki mooy saan wuy dem di dillu si lu mu gën a bari gën a baax yonent bi di ñaan rek sunu boroom subhaanahu wa léegi nag génn na joxe na ordre ñépp jàkkaarloo ñu daldi génne ñetti nit ci jullit yi ñett ci yéefar yi génn daani yéen suñ mbokki waa màkka yi génn leen ñett ci waa madina génn Abu ne leen déedéet yéen sunuy mbokk ngeen waxuñu leen ñun suñ mbokki dëkkaal yi dëkkoon màkka te daaw fa ñëw ci yéen ñooñu lañu soxla Hamza daldi génn Aliyin ak Sayba kenn ku nekk jàmmarloo ak kenn ci saase rekk yónnent bi daal di joxe ndigal xare ba daldi tàkk kenn ku nekk ki nga jàmmaar lool nga daldi koy rey rey bu gaaw Seydina Alin dafa rey kooku rey bu rey kooku rey bu gaaw moom itam ci yéefar yi ñaar daanu nan say ba ki mu doon jàkkaar lool xaw ko blessé ñu pare ñoom ñaar dimbale ko daldi di rey kee kon yéefar yi ñaar daal dinañuy ñett daal dinañuy faatu jullit yi kenn moo ci blessé muy say ba te dafa doonoon mag waaye blessure boobu it moo ko def ba yàlla def mu wàcc ab liggéey xare bi Abu Jahlin daal xool xam ni xare bi bu fekkee dañuy benn benn jullit yi danañ leen jeexal tàkk ndax ñii seen gëm gi dara mënu ko yëngal ñu daldi di sensé ñoom stratégie de guerre daal ni nan leen sarxalu ci biir jullit yi rekk bennoo bennoo leen daal di leen di faagaagal ci saase bi ñu waxee lii rek ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sidina jibril daal di ñëw daal di ne wa alfun baada nu ñetti junni malaaka suñ borom wàcce na ko keroog badar dañoo ñëw ngir tiital yéefar yi ngir bégal jullit yi xare ba daal mel ni niki ki ngóob bu ñu gaawal ni ñuy góobi dugub noonu la xare ba daal di gaawe ci saase yëfar yi sarxalu ci biir jullit yi di leen dóor ndi jor ak càmmooñ jullit yi yëpp am ngëm gu dëgër goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi mën nga ci biir xaaris bañ ko sàkkaloon waaye day génn tibb ngëbub suuf jàng li muy jàng daldi koy sànni ci yéefar yi seen bët yépp lëndam ba dootuñu gis dañuy dem ba gis ku ñu war a dóor mu di ab jullit waaye doon ko gis ab yéefar lañuy ñuy gis ci kanam ñu dóor yéefar ba ba nii la xare ba daal jeexe ñu rey ci ñu baree baree bari keroog xare Badar boobu rey nañ juróom-ñaar fukki yéefar jàpp juróom-ñaar fukk muy téeméer ak ñeent fukk yoo xam ne bi loolu amee nag Abu Jahlal daanu na waaye inde bintu xutba ma ngay soññ fële rek waa si ne ko yow moom xare bi sa yoon nekku ci Hamza mi képp képp laa soxla nga reyal ma ko Hamza képp boo ko reyee daanaka yow moom gore nga xare boobu doon xare bu méttee méttee métti xare boobu doon xare bu gaaw a gaaw a gaaw yéefar yi nag bi ñu gisee ni julli yi dugg nañ ci seen biir di leen rey rey gu méttee metti di leen caw ay jaasi fenn fu nekk jaas yi di fa jóge ñu gis ay gawar yu nekk ci kaw mel ni mbooloo mi dafa gën a bari ñi sol lu weex bari lool ñu ne jullit yi seenub lim kenn mënu ko daldi wone gannaaw daldi daw ñu topp leen di leen dàq ñu wëcc mboolem yu diis ñu fa amoon muy seeni fit ak seen i jaas seen mbubbi ko yépp daldi di war seen fos ya daal di daw daldi di wane ginnaaw xare bi jeex na jullit yi ñi ci daanu mat nañ fukk ak ñett keroog muy xare bu metti ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor doon xare badara ci xare boobu sababu nusul lañu wax ne alquran ci xare bii la wàcce wala ci beneen xare waaye ala kulli lu mën a am sun borom nee na bismillah arrahman rahim alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yajal kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi bihijaat min sijil fa jaalahum ka asfin makulin kon sababu nusulu aaya bii ci la suñ borom ci la Sëriñ Tuubaa di wax ci biir xasida googu di jasbul xuloob di wax mettiwaayu xare boobu ak gaawaayu xare bi yéefar ya daw nañu ñu daldi dajale màng mi nag yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngay faj fee jullit yi ñi daanu ñu daldi leen denc foofu ca Badar waññeeku jëm si Madinatul Munawwara xare bi metti lool ci jullit yi ndax ñàkk nañu fa fukk ak ñett kon ñetti téeméer ñoo ñibbisi yonent bi sallallahu alayhi wa ànd ak ñoom di leen kañ di jàng alquran di julli ci sunu boroom di jullil sunu boroom di ñaan tàllal ay loxoom di ñaanal jullit yi di leen kañ ndax def nañu ndam ndax ñetti téeméer ak fukk ak ñett bu dajee këb junni ndimbalal yàlla la waaye yonent bi la mu gis ca kanam di leen waar nii ngeen góor góorloo ba tax ngeen gañe xare bi bu ngeen ko bàyyee bu ëllëgee nag meneen mbir mën naa am ndax suñ boroom li mu bëgg rek mooy diineem ji daldi jàll kon tey jii gañe ngeen xare bi waaye ëllëg su fekkee topp leen digalit man ngeen a perte beneen xare kon yonent bi sallallahu alayhi wa nii la xare bi tëddee doon lu metti lool ci jullit yi ñu wàññeeku del si madinatu munawwara waa màkka dellu nañu màkka ànd ak lool abu jaal daanu na juróom-ñaar fukki ci ñoom rey nañu leen jàpp fa juróom-ñaar fukki nit yóbbu leen madinatu munawwara léegi nag lan moo des màngit mii nga xam ne yonent bi dajale na ko nit ñi kenn ku nekk nag am ci xalaat di ci wax te xalaatu bi yonent bi moo gën a jub moo gën a rafet moo gën a wér ndax moom suñ boroom moo koy informé li mu war a def ak li mu war a wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal laaj xalaat ci ñii ñu jàpp nan leen leen war a def Abaa Bikrin ne moom nañu leen rey ndax yéefar du mbokk hmm, kii ababikrin ne moom nañ leen laaj ak njot te ñu jàngal doomi jullit yi kuñ ci mokkal muy sa njot koomut ak njot omar yonent bi laaj ko mu ne nañu leen rey ñii duñu ay mbokk di leen bàyyi fii di laaj ak njot daal man ànduma ci nañ leen rey yonent bi sallallahu xalaatam gën a lëng ci xalaatu ababikrin ba sunu boroom yónni Seydina Jibril mu indi alxuraan bi yonent bi sallallahu alayhi waxee ne bi wax yu gi wàccee ba pare mu ne tey jii di bu safara wàcce woon ci kaw asamaan lii muy def mooy ñun ñëpp danañu lakk ba mu des Seydina Omar Seydina Omar bi nga xamante ne ñëw na ci lool yet dëggoom googu ndax yonent bi da daan diisoo ak ñi mu àndal di diisoo ak ñoom fu ñu mën di toll. ndax loolu lu am solo la muy kilifa di diisoo kon xare bi jeex na dellu nañ ma dina indi nañ ndam waaye nag fukk ñett daanu na ca xare ba yéefar yi reyal nañ leen juróom-ñaar fukk jàpp juróom-ñaar fukk kon xare ba dara ngi nii bindoon nañ lu ci gën a yaatu sax waaye foofu lañ koy yamale ti indi yeneeni fenêtre ci biir waxtaan wi nga xam ne mooy xare badar jombut yeneeni waxtaan ak yeneen ñambaas yoo xam ne xewoon na ci xare badar danañ ko indiwaat ngir gën ko leeral ndax lu leer rekk lañ ci jublu waaye nañu xam ne xare bu metti la woon mu ngi amoon ci weeru koor ci teen bu ñuy wax badar ki ci jëkk na faatu nag moom danoon xal mikk moom dana naan ca ndox ma rek wala ba kanam des fa moom moo ci jëkk faatu ñoo ñëpp indi woon nañ seen tur waaye yàlla daa def fiñ ko defoon xaw a làqu ci ñun ba tax na bëgguñu ci juum benn yoon kon yéen a ngi ci Bawal Média ci 88 point ci seen émission Basiran wa Nasiran kii nekk ci waxukaay sëñ Mamor Ngom Yakhine bu Daaru Salaam soxna Kumba Diop moom la ñu janool ci xarala bi kon soxna Kumba mën nga noo sanseel sunu indicatif boobu te ubbil nu ligne bi ba képp ku bëgg a bokk ci waxtaan wi rek mën ngaa jaare foofu muy 88 628 19 05 88 628 19 05 kon soxna si man nga noo yëkkatil sunu indicatif boobu fekke jekk nga nga yëkkatil ni ko inshallah allah ko may képp ko xam ne sopp na rasul kumba ci liggéey bu rafet boobu xale bu sawar ndeysaan feggoog soxna jàmm 88 628 19 05 foofu mooy buum gi ngeen mën a jaar ba jokkoo ci waxtaan wi yéen a ngi ci émission ba Basiran wa Nasiran ki nekk ci waxukaay sëñ Maamar Ngom Yaqiin kon lan lan mën a jàngee ci xare bi mooy jullit yi ak dëggu war naa feeñ ci ñoom ci waxtu wu nekk waaye jullit yi aw fit ak yambar war naa feeñ ci ñoom jamono bi xare badar di am ak fa mu doon am ci baatin ñu bari xam nañu ci way xam yi ne ñu bari fii di nga jekki ba benn bis ñu ne la diw sàngam di koo xam nee na fekke war na xare badar waaye loolu lu am solo la te diisu ko sikki sàkka ci ñi xam ci ñi xam diisu sikki sàkka loolu ndax sunu boroom lu ne lay maye te jëmm yi yàgguñu waaye ruux yi ñoo yàgg ca yow ma alastu la sunu boroom bind yi wuutale leen waaye bis ba mu sottee ne alastu bi rabbikum ruu yépp keroog la suñ borom sottal ruu yépp mu des jëmm yi ak jaarkaay yi war a jaar muy diggante waajur yi ak xeet yi ak làngaasi yooyu yëpp boo ko seetee sunu borom sotti na ci xalima ga xalima ga fende na ruu yépp la bindandoo misaal nii nga tiime sa kemb gi sotteendoo ko walla sa balaas bii sotti ci ba mu nekk kilo nga sotti ko noonu nga ko sottee sunu borom noonu la sottee woon ruu yi janook ñoom ne leen alastu bi rabbikum ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa moo jëkk wuyu ne ko bala mboolem ruu yi way xam ya aarifoona yi ne bala mboolem taabi ayna yi ne bala taabiaat yi ne bala ak ña ca topp ila axiri ila axirihi ndax maqaama yi nga xam ne sunu borom daf koy may góor yàlla yi muy diggante maqaama tamkiin ak baqa mboolem kuréel yii di kuréel yi sunu borom yi subhanahu wa taala nga xam ne ab daal yi kuréel la boo xam ne ñeent la ñuy doon mën nañ ko ëpp imaamaa yi ñeent lañuy doon mën nañ ko ëpp wakiil yi doon ñeent mën nañ ko ëpp waaye xut bu moom kenn lay doon ci jamono kon bu ñu nee la diw sàngam fii ci senegaal wala ci réew sàngam fekk woon na xare Badar nga xool diggante yonent bi sallallahu alayhi wa ak kooku lim bi nga fi jaarale ci ay at tekkiwul loolu li mu tekki mooy gaa yi yàlla yi suñu borom da liñ di taxañal jamono waaye boo indee jamono rekk ak ni nga ko xalaate ak fi nga toll yow doo mën a digg wax jooju nan ngay def dangay xam ne suñu boroom temps ak jamono amul ci moom ak espace suñu boroom day tawi jamono ba mu yàgg lool suñu boroom dana taxañal nit ñi jamono ñennati gaayam yi di wàlli suñu boroom yi di xejjam yi di ñu baax ñi suñ borom dana leen di taxañal jamono ba jamono gàttañ lool ci ñoom am na génn góor yàlla goo xam ne dañ ko doon wax ne ko yow daal tëdd ak nelaw ak jóg rekk ngay def te ngaa jóg dem ci der bi jël sa kurus gi te jaamu yàlla mu ne leen man waxtu wu may nelaw damay jël mboolem waa suuf ak waa asamaan seen jaamu gi suñ borom ndax ma koy jox ma taxañ ko moom laay ngegenoo kon kenn yëmut ak sa moroom war a fax naa darajaatin fawqa darajaat daraja yi dañoo wuute maqaama yi dañoo wuute nit ñi doxin gi ñuy dox jëm ci yàlla muy gaay yàlla yi doxin yi dafa wuute kenn ku nekk ak may gi la suñu borom may nga toofoo ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la mel Aba Bikrin donn ko ci gëm ak ak dëggu ak ak lewet donn ko ci yërmande ja lewet lool moom Aba Bikrin Omar donn ko ci ak dëggu ak nungoo wéet ci mbir ak lu mën a xew Ousmane donn ko ci wàllu tabe ak lu mën a xew Seydina Aliyin donn ko ci ak njàmbaar ak wàllu xam-xam ak lu mën a xew moo tax daana wax ni man mii maay niigu xam-xam waaye Seydina Ali mii mooy buntu ba moo si Seydina Ali daana wax ne bu ñu ma mayoon ndigal faatixatul kitaab danaa ci saraa lu ëpp ñeen fukki gile mbaa lu ko ëpp ci faatixatul kitaab rek kon sunu borom nëbb na lu baree baree bari sunu borom nëbb na lu bari lu néew la feeñal moom ci àdduna sunu borom lu néew la fi feeñal am na gaa yoo xam ne bu ñu feeñaloon siini maqaama fii ci àdduna kenn duutu jaamu sunu borom kooka la ñuy jaam wilaya dong dong dong buñ feeñalun dëgg dëgg wilaaya képp ñu ko lo ci jamono nit ñi dañuy faté suñu borom di la jamm lolu tax ñennati gaay yalla yi ñu di leen woyé suñu borom ni ñi duñu ay nit ndax dañoo xejj ci seen borom ba dootuñu jëf-jëfi nit kon nag loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax ngir nit ki jàngat xare badar bi ñu jàngat ci julli yi ak njàmbaar jàngat ci jullit yi ak dëggu jàngat ci ni jullit yi ne xam ne diiney lislaam ji du diiney fo du diiney folklore diine la ju jëm ci yàlla direct ñu war a jaamu sunu borom ci diine ji ngir sunu borom yërëm xeetu Seydina Muhammad bu ëllëgee noo am yonent bi gën ci yonent yi nga xam ne mooy yonent bi yonent yi yépp mboolem yonent bu fi jaar rek yaa ngi doon leeral yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ni yonent bi ñëw yonent bi mooy ki nga xam ne laa ko hawa in huwa illa wahyun yuha di doomi doomi ki gën ci di doomi ñaar ñi ñi waroon a rendi bayam di abdullahi dañ ko waroon a rendi ñu jot ko ci ay gileem mu neex sunu borom ismaila di maamam ñu waran koo rendi ñu jot ko ca harma kon ab jullit war nay sacrifice dundam di génne sarax lu bare bare bari di nafar dundam ji muy dund ci diine lislaam di xam ne kaso yéefar yi ñoom àdduna suñ borom dalin ko jagleel waaye jullit yi kaso la ci ñoom ñu war xam ndax yu bari da ko war a moytundiku yu bare bari moo tax muy kaso jullit yi xaraam yi ak yi ñu sib ak yi ñu moytu yu lënt yépp dañu war ab jullit di ko moytu bu baax a baax a baax kon fokk ñuy dellu si di dellu si waat di dellu si dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu bëggee xam fu nuy teg sunu tànk sunu bëggee it gañe sunu dund mooy jël ci àdduna ab yóbbal ngir bu ëllëg yowmal ak bar ñu bokk ca tiraanga yu mag ya waaye loolu ab nooflaay du ko maye bànneex du ko maye topp sa bakkanit du ko maye ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu jógee ci xare badar ñii ñu jam leen ñii ñu fokk seeni bët ñii ñu dagg seeni tànk ñii ñu dagg seeni loxo yonent bi dane jóge nañ ci jihaar ju ndaw ji ñoo ngi jëm ci jihaar ju mag muy lu doy waar lool di lu doy waar lool ñu wax ne ko yow ki yàlla yónni ci dëgg xare bii bu fekkee mooy xare bu ndaw bi kon xare bu mag bi nu jëm nu muy mel xoolal ñi ñëpp seen butit yaa di lang ñii seen loxo yi dagg nañ ñii dagg nañ seeni nopp ñii xotti nañ seeni biir ñii daanu nañ ca xare ba nga ne mooy xare bu ndaw mu ni waaw jiyaar ak sa bakkan mooy xare bu mag bi ndax boobu du la wàcc benn yoon amul ci guddi yi amul ci bëccëg yi moo tax ab jullit keroog biñ ko tegee ci kaw berso bi ba keroog ñu koy teg ci jaar gi ci kuusu bàmmeel dara lu jar mu xàqataay fi amul war na di peese ak dundam xam ne sun borom subhaanahu wa taala bisa ngi di ñëw bu ne ci kanamam boo xam ne amul fenn fu mu ko mën a bët amul fu mu ko mën a jaar loo bari le bari le da ci jaar loo néew li néew li danga ci jaar loo dund dund danga ci jaar loo gàtt gàttu fen da ci jaar képp ku mu doon kenn ci ñun dees na la sang sang la jullee la tegle ci kuusu bàmmit jébbal suñ boroom nga dugg ci biir suuf subhaanahu wa suuf dana la naj ba meew mi nga nàmpoon ci sa yaay dana génn ayi sa bis romb na ab néew bi ñuy suuli di xale bu ndaw mu jooy ba rongoñ fasto ci ab siggimam ñu laaj ko ne yow Aysa lan ngay jooy mu ne xanaa yërëm xale bii rek ci naj gi ko bàmmeel di naj ndax sallallahu alayhi moo ko wax mu ne ko naa kon xale bii sax mu ne kii ak ñépp kenn du mucc ci naju bàmmeel moo tax nit ki war na di dellu ak dundam di ko nafar lan moo tax suñu borom bind nu ak lan moo tax mu bàyyi nu fi ak lan moo tax bu ëllëgee nuy taseeg moom waaye bu fekkente ne du nu nafar sunu dund ak li tax sunu borom bàyyi nu fi ak li tax sunu borom ne haza siratul mustaqim dañuy mel nitil lu wala béy yu ñu boleel amutëb sër bi nekk ci àll bi léeg-léeg bukki saraxalu ci seen biir fàdd ci lu bari léeg-léeg gaynde yi fàdd ci lu bari léeg-léeg till yi fàdd ci lu bari waaye bu nu nungoo am njaatige nungoo am ab sàmm te nungoo sàmm yem fa nu wara yem di am kilifa di dégg ndigal di bàyyi ay tere di nafar dund yonent bi sallallahu alayhi wa xam na nun sunu borom dañoo bind te bu ëllëgee suñu borom dañoo digal dig nu tere nu tëkkunu te lenn lu nekk am lu ci war war nañ di nafar suñu dund bu baax a baax a baax wàññi xàqtaay yi wàññi tib yi te wàññi damu bañ ne démb la woon bis fii kenn gënu fi kenn gën te bari le taxul nga gën kenn ëpp mbooloo taxul nga gën kenn li nit di gëne fa yàlla mooy ku la gën a ragal yàlla rekk moo la gën waaye alal yu bari yeeg oto yu bari yeeg kont yu bari yi taxul kenn gën fi kenn mbooloo mu bari mi am na ñoo xam ne soxla wuñ ci àdduna dara dara dara dara léeg-léeg nga gis wàll yi woo xam ne day naaw ci jaww ji di xuus ci ndox yi nga gis koo xam ne wàll yu ko gën a yegg ci yàlla goo xam ndox moo ko rey yu yonent yàlla Muusaa ci jamonoom fekkoon na benn wàll yu muy jaamu sunu boroom di jaamu di jaamu di jaamu ba naaj wi jot ko attanut a tuxu sax ca kër ga toog rek ci digg naaju di jaamu ñaq wi wër ko muy jooy di jaamu suñu boroom waaye mu ne kii day laaj sunu boroom mu ne ko kii de maqaama mi mu bëgg moo ko tax di sonn ci jaamu waaye jombut mën na caa yegg mooy amaana waaye bi yonent yàlla Musaa jàllee bi mu dellu si waat fekk na wàll yi doon jaamu suñu boroom jaamu gu metti gu tar googu gaynde rey ko ba di ko lekk mbir mi jaaxal ko lool moom yónnent yàlla Muusaa wala ku mel ni moom mu dem julli ñaari ràkka tàllal ay loxoom ñaan suñu borom wën ko mbiram waa ji yàlla ji doon jaamu ci naaj wi ba naaj wi jot ko te gaynde fàdd ko di ko lekk sunu boroom xamal ko ni kii maqaama mi mu doon ñaan feeg ñeent fukki at bu ko doon jaamu yàlla di ko sellalit du tax mu yegg ca maqaama mooma te bëgg ne ko teekoo nelaw doon la ko xolam kon nu indi ko ci doye dal ba wàcce ko ngir gaynde rey ko lekk ko ngir mu yegg ca maqaama mooma am na ci gaay yàlla yi koo xam dañ ko laaj ne ko waaw kañ bëgg gi nga bëgg suñu borom kañ kañ nga koy wàññi wala kañ nga koy bàyyi mu ne xanaa bu ma demee ba kenn mu wóor ma ne kenn bëggatu suñu borom kenn bu boobaa dey xaj na xaj na ma wàññi ñii ma bëggee suñu borom subhaanahu wa waaye loolu du am ndax jamono ju nekk sunu borom subhaanahu wa taala ni muy àndee ay ay gaayam moom sunu borom subhaanahu wa taala ni muy tëggee ay gaayam am na ñoo xam ne doo leen xam ndax bëgguñu ci àdduna dara dara dara dara waaye am na ñoo xam ne pour kër yi àdduna dong li ñu bëgg am na ñoo xam ne boo leen bettoon tey nii leen kër ga dara nekku fa wallaay boo ñu tiimoon takki xaalis yu dul jeex dañu naan la ba beneen yoon boo fi dellu nangam waaye boo leen fekkee ci biir mbooloo mi wax leen ko day mel ni loola daf leen a fi ñu génne joxe luñ ci soxla mooy diw ku tabe la diw ku mën a joxe la kon yooyu jara bàyyi xel bu baax a baax kon soxna si mën nga nu yëkkatil suñu indicatif boobu incha allahu taala ñu dellu si ci waxtaan wi alguna. Jade mi Resulta. jërëjëf soxna Kumba ci liggéey bu rafet boobu kon 88 628 19 05 képp koo xam ne rek bëgg ngaa bokk ci waxtaan wi mën ngaa jaare foofu seen émission Basiran wa Nasiran fii ci Bawol Média ki nekk ci waxukaay sëñ Maam Mor Ngom Yakhine ki nekk ci machine bi tey mooy soxna Kumba di xale bu yaru kon képp ku bëgg bokk ci waxtaan wi rek mën ngaa jaare foofu kon ñu dikkaat ci dundu gi nga xam ne nit ki toujours suñ borom di ko jàngal ci même ndundat yi suñ borom di leen ci jàngal ci diggante yii mu bind tey ñu bëgg leen ci indil benn mbindeef boo xam ne bu yéemee la xaj na xale yi moom xamuñu ko waaye mag ñi dinañ ko xam muy diggante picc yi ngay gis yonent bi sallallahu alayhi wa boo déggee ababikrin ne yonent bi daana nu jàngal ba picc naawee sax ñu am ci xam-xam baatu picc moomu mu wax secret bi suñ borom def ci picc yi jombul bu beneen émission dinañ indi imaamu xasaali keroog bi mu indee miisaanu suuf ci picc yi ngir di ko misaal ndax yu bari dees koy misaal waaye deesu ko tudd am yoo xam ne dañ koy tudd am yoo xam ne deesu ko tudd tey ñu indi leen picc mi ñuy wax toq toq ñaari façon toq lañ mooy toq gu ñuul moom la ñuy wax jëgg mag ñee ko xam toq gi nga xam ne dafa am dungu yu weex ak dungu yu ñuul moo di toq ñaari picc yooyu doon picc yu yéeme kee voyageur la comme ni ko xale yi xamee moom bu nawet bi jeexee rek day dem ca dëkki dex ya di fa dund ba noor bi jeex mu wàññeeku dellusiwaat ci nawet bi nen tàgg jur delluwaat ñoom loolu mooy seen mbir mooy ay voyageurs lañ di ay tukkikat toq gii nag moom fu mu mën a nekk jamono bu nawet bi di jub nga xam ne nen war naa jot dañuy daal di dem àndandoo ñoom ñaar muy borom kër bi ak soxnaam ne ko nañ dem wëri appartement ñu dem wëri appartement ba gis genn garab goo xam ne gu amam lëm la waaye ngir ñu xool ci garab googu comme am na am lëm mu dugg wisite ndax dara ko fa gis ne dara ko fa mu xool ci kaw waaye xam na ne fii kat maanaam kuule nañ ko ba ndox waru fee mën a jaar mu ne ko kon nag fii baax na moom it mu dugg moom borom këram xool xam ne fii baax na mu daal di ne ko kon nag bisimilahi damay daal di fas yéene ci kàttanu yàlla nen daal di fay nen ñaari nen waaye bu nenee nag day génn daal di dem wuti nag ban ak ndéef indi borom këram di ko laaj lii loo ci jublu mu ne ko jotagul bu dara desul lu boof nag mu ne ko man mi maa nen waaye yow yaa war a boof yaa war a comme man maa nen yaa war a boof waaye ñu jànge ci loolu lan la tokk gu jigéen gi xalaat ci loolu te it suñu borom may ko ci loolu kon am na ku nekk ci ligne bi ñu dala ko bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam ku baax koo kan la. ah ndeysaan dafa wàññeeku ndeysaan 88. 628 19 05 man ngaa jaaral foofu ci buum gi incha allah xam naa li des ci waxtu yi sax taxu koo bari noonu bi loolu amee mu dal di koy ne kon noonu baax na daal di dugg ci biir xam nga ñu koy partagé wu bu duggee ci biir rek danaan ko sa dung yu bari yii bu fekkente ne yaa ngeeg moom tàngoor wi dalay rey daal di koy suqi moom bu góor bi bu jigéen bi daf koy daal di suqi bu ko suqee nag mu tàmbalee boof mu daal di koy tay ba gémmiñ gi kese mooy xañ ci lëm mi muy fori nag di ko indi waaye ngir ñu jàngat loolu su fekkante ne bu góor bi bu jigéen bi dafa nen di bóof ci biir pax mii da ko fay fàtte bu mu faatu ndax lu tax bu gisee keneen daf koy topp ngir ñu jàngati loolu loolu nag mag ñi ñoo ko xam waaye xale yi ñi ci ëpp mu xamuñu loolu ngir ñu jàngat ci secret yi suñu borom def ci loolu mun naa di continuer di bëf moom bu jigéen bi dem ne moo war a def dépense dem di wuti nag di indi di ko jox di wuti di ko indi di ko jox ba mu yàgg mu toj mu doon dégg genn kàddu léegi mi ngi dégg ñetti kàddu kon ñaari neen ya toj nañ muy bu góor ak bu jigéen ak seen baay bi nekk ci biir léegi bu indete benn socce dañ koy def ñetti parti kenn ku nekk jël benn ba ñu naaw ci biir lëb moomu ñu nekk mu yëg ne për për ji bari na kon xale yi commencé nañoo mën a naaw ah léegi nag mu daldi toj bu góor bi ñu génn ñoom ñaar ñu dem wuti dépasse ngir gëj naa génn moom itam mu génn wàcc fa seen ñaari doom yi kenn ku nekk di indi benn soccet walla wenn sax di leen ko jox ñuy dunde ba mën a naaw nag ñu xam ne ñii mën nañoo naaw ñu toj génne leen ñu naan ci biir branche ñu fekk leen fa xont ñu yéeg ca ba ca gën a kawe ñu fekk leen fa xontu ñu naaw dem ci geneen garab ñu fekk leen fa xontu daal di leen kon nag aca léegi mi ngi noonu di ànd ak ñoom ba benn bis mu ne leen dem leen ak seen bopp kon kooku jar naa bàyyi xel bu baax a baax ci suñu borom nii muy doxale ak picc moo tax suñu borom bëggul kuy xalaat ci jëmmam ja dafa bëgg ngay xalaat ci li mu bind sunu borom boo dee xalaat ci li mu bind rek da nga yéemu ci sunu borom subhaanahu wa taala yéemu ci moom ndax bari na yoo xam ne bu ñu la indilee maanaam jaar-jaari loola ak secret yee ca nekk ak mbir mooma dalay yow da ngay mujj sax dootoo doon nit ngir suñu borom ni muy defee te suñ borom lul ci dara dara dara te xalimaam nga fend na ci lépp lépp lépp suñ borom dafa bëgg lépp lépp lu am rek moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko doon wax ne lépp lu am res wu tooy rek yërmandee nga ca yërmandee nga ca moo tax suñ borom bëggul kenn kenn ku yàq ba yonent bi doon na ko jàngal saaba yi ba yegg ci yàq ni mu bone ak ni ko sunu borom bañe 88 628 19 05 képp ku bëgg a bokk ci waxtaan wi rek mën ngaa jaare foofu li des ci ay simili yu néew moo ci des 88 628 19 05 yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk kuy jàng di yàq waaw kay am na ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaw Baye ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax ku baax koo kan la. maa yaa ngi fooy wootee. maa ngi wootee Dakar. ah dakaar naka waa dakaar yëpp. ñëpp a ngi ci ndax mën na xam tur wi. wala damaa bëggoon ku ma xoolal. ah ki doon xool wàcc na nag léegi ñu ngi ci émission ba Basiran wa na ah waaw ah, kooku wàcc na waaw. Ah. waaw kay ñu ngi lay jaajëfal ci woote ah. waaw kay man mën am numéro waaw numéro technicien bi dina la ko mën a jox. waaw waaw baax na boo coupé moom dina la ko jox. waa kay ñu ngi lay jaajëfal ci woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa doon koo xam ne di jàngale ci ak yàq ñu moytu ak yàq ndax yàq baaxul yàq baaxul yàq ni mu bone suñu borom daf ko bañ mu ne ko yow boo nekkoon ci tàkku géej gi sax di as di tuur lu baree bari na nga xam ne yaa ngi yàq moo tax yàq baaxul ñu ngi dénk mbooleem xale yi ñu moytu ak yàq ñoo ngi dénk mboolem njaboot gi ñu moytu yu bare baree bari yoo xam ne daf leen di julal loraange di gëdd seen waajur yi di leen indil ay baat yoo xam ne yu mat a moytu la ndax fi nekk nii jamono fi mu toll daanaka liberté bi dafa ëpp doole te liberté boobu war na noo xam liberté fi mu yem fi sa liberté moroom tàmbalee ak fi sa liberté yam kon fokk ñuy dikk ci jamono di jàngalaat xale yi te xale yi dégg lu ndigal ndax gis nga bopp bu am barke nopp yu dégg ndigal moo cay sax waaye bu fekkente ne bopp bi barke nekku ci nopp bu dul dégg ndigal rek moo cay sax kon war nañu di delloo si tey war maal mag ñi di leen war maal bu baax a baax a baax surtout borom xam-xam yi di war maal siriñ daara yi di war maal ñi nga xam ne alquran dafa nekk ci ndax alquran mooy li jëkk mooy li mujj gi nga alpha bi bi ñu leen jàngal muy nasaraan nasaraan bi nañu fexe jàng làkk wi te bañ a jàng jikko ji gis nga jikko bu yowmal xiyamatil akbar ñi rafet jikko ñooy jëkk tabbi aljanna ñi ñi nga xam ne li jëkk a li jëkk a teg sim ci balance ya mooy rafet jikko ñi jëkk a tabbi aljana mooy silma xay ñooy jëkk a tabbi aljana bu kerew gi ay kuréeli kuréel dañuy yëkkati kuréel bi nga xam yow ma nad'u kullu unaasin bi imaamihim yow ma nad'u kullu unaasin bi imaamihim imaam jooja ki dàqa caaxaan ci nit ñi bu ñu ko wooyee mboolem ñi caaxaan dañuy jóg ànd ak moom te duñ ko sañ bañ ki dàqa naan sàngara bu ñu dénoncé awtura turam mboolem ñiy naan sàngara dañuy jóg ànd ak moom ki dàqa fecc ci musique dàqa dem ci daasin yi ak bu de nuit yi bu ñu wooyee ki ci dàqa dem ñëpp dañuy jóg topp ci moom bu ñu wooyee ki daq jàng alquran ñëpp ñuy jàng alquran dañuy jóg ànd ak moom kon su ko defee yooyu yëpp jar na bàyyi xel bu baax a baax xam naa li des ci waxtu wi dañuy wàcce suñu kàddu su ko defee jox leen dig daje ndax euh, mooy kaar lañ waxoon ne fa la ñuy tekkee te it waxtaan wi li ci ëpp lépp ànd ak yitte jamono ji ak coono bi tax na nin ko bëgg na waxtaane waxtaane wuñ ko noonu ligne bi xam naa ñi jot a dugg bariwul waaye ñu ngi sant bu baax a baax tey gërëm di siyaar mu mbokki auditeurs yi bawal yi di leen siyaar bu baax a baax baax bawal FM di ñaan suñu directeur bi subhaanahu wa taala fi mu bëgg yóbbu rajo bi yal na ko fa suñu borom yëg ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi ak biti réew di seetaan ci mboolem jumtukaay yi ne jaar te di ñu déglu ñoom ñëpp auditeurs yeeg auditrices yi ñu ngi leen di jéggalu am na ku nekk ci ligne bi xool ko ba xam. asalaamaaleykum ok ku baax ko ku doon. bëgg Fallou noo ko bokk bëgg. ah noo ko bëgg Baye Cheikh Gueye Ridial. waaw ah, ñu ngi lay ziar yee xam naa sa xool yëngu na. waaw ah, <laughs> rek moom ci a neex soxna Kumba. ah waaw moom day mu ngi noonu. waaw waaw aw turam ah. ah moom moom kay daa mel ni moom est-ce que man du bàyyi see gay est-ce que man du ma ci takk sax aw sagar nag. ah waaw ah, kii daal daa mel ni mën naa tànn bi jaaw nag bàyyi see gay <laughs> bàyyi see gay ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax. ah nu ngeen déggee waxtaan wi. rafet ko moom moo def. Mhm. waaw waaw. dafa nekkoon ci li nga xamante ne mooy ñu jëkk ñi. wallaay wallaay asim. ndax defe naa indi moomee boo ci koy defee waxtaan ëllëg. Uh-huh. xamante ne ba ba bañ ko yonent bi wax naa moom ba ci ne mu ne ko sàcc sax mu ne ko ñun dañuy doon ñooñu ñu ko. incha allah danañ ca yegg de loolu ci kanam la. yéefare daal ñu ci a am jom. waaw. Eh, maanaam dañoo am lu ñuy jom. dañ koy topp incha allah dundu yonent bi la ñuy topp nan ko topp rek ba ca kanam. mbirum yàq metam. Mm-hmm. dañ dañu doon jàngal ñun de maanaam mbuus. waaw waaw dëgg la de. wallaay ndeysaan. kon loolu bu fekkee nit ki jàngal nga ko ne wërta. wërta daggaa muus. kon wërta am yére mu noppi mu sànni ko da koy gas suul. waaw wala ma ko ku féetewoo. allahu akbar kon jàngal nga ko ne kon nit wërta fecc ko la ren. wallaay wallaay. ku dul fecc ko la rek ak mbuus kay. Mhm. dama dama waxaale wuñ ko. ak a wér ak a beneen bi muy yàq moomu. Mhm. ginnaaw amoo droit rocc ak garab. waaw waaw ndax da daan tàbbaal akbar allahu akbar. oh Baye Cheikh Gueye Ridial mi ngi dikkoon fu am solo. kon su ko defee rek foofu la ñuy yëkkatee jataa bi incha allahu taala ba jëmmee jamono te di leen tàggu fii di ñaan sun borom subhanahu wa taala mu def li gën ci nun te dëppale ko li ñu gënoon ñoo ngi siyaar mboolem auditeurs yi doon déglu rek Baye Cheikh Gaye jaal moomu ñëw na fu am solo ndeysaan ñu ngi koy siyaar bu baax a baax di ko ñaanal mucc ak xéewal di ko ñaanal waa këram yëpp di ñaanal mboolem suñuy soppe yi nga xam ne yëpp ak soppe bool yëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di ñaanal suñu borom subhanahu wa taala ñoo ngi siyaar soxna maam Bousso Mbakke moom suñ fallu moom suñ Tuubaa ñu ngi koy siyaar baax a baax di ñaanal suñu Abou Bousso di ñaanal Cheikh Modou di ñaanal suñ Sidi Mbakke foofu ci Mbusoobe ñu ngi koy siyaar baax ak Baye Fallu Konte ak Baye Diop Ima Bilal ñu ngi leen di siyaar bu baax soxna Ngéya Fay ñu ngi koy siyaar baax soxna Kumba Sëy foofu ci kër ga ñu ngi koy siyaar baax waa Daaru Salaam suñ Sidi moom suñu am ñu ngi koy siyaar bu baax a baax soxna Daba Ngom ak waa kër ga soxna Fatou Ngom ak soxna euh, Jooja ñu ngi koy siyaar bu baax baax say na Ndey Ngom ñu ngi koy siyaar bu baax a baax waa jannatu ñu ngi leen di siyaar baax a baax ak mboolem auditeurs yi fu ñu mën a nekk rek daayir yëpp ñu ngi leen di siyaar baax a baax waa marché ba ñu ngi leen di siyaar commerçant yi ak commerçante yépp ñu ngi leen di siyaar bu baax baax di ñaanal kenn ku nekk lu mu yëngu yal na ci sun borom def aw yiw te def ca tiranga ba mën dem ñi dem te dellu si yal nañu dellu si waat indi sëri cobu woom lool ñoo ngi siyaar mboolem technicien yeeg technicien yi ñi yëngu ci biir kër gi yépp ñu ngi leen di siyaar bu baax baax auditeurs yeeg auditrices yi di leen ñaanal sunu borom subhanahu wa taala mu def li gën ci nun yal na sunu borom musal ci yàqu ak yokkat ak yàqule yow yàlla bu wërsëg bi nekkee ci ko asama nekk cëng mu wàcc waay bu soree dara du ko kat bu nekk ci biir suuf nekk pu leen mu génn bu soree dara du ko jar bu tuutee dara du ko jar na barke lool nga ne ko tegg suñuy loxo ginnaaw suñu bakkan rek nan na gamay nelaw rek nga ne ru seeroo gi ndànk jébb suñ tubaa doxuus ba aljana barke borom tuubaa